toute, l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. état d'esprit est-ce que vous êtes état d'esprit que vous bi parce que Sénégal yëpp y nañu maag Omaro bi de sax toog di alors nit da un esprit de dépassement état d'esprit esprit de dépassement bi mu am ba ñëw sama kër gi man war naa mën a am esprit de dépassement wan ko ni man tamit am na ko c'est ça mindset kon état d'esprit oui jërëjëf Oumar

Manque tout tout tout pour faire demain. mais des fois, rek je suis très sincère à mes propos et quand je parle ça vient au plus profond de moi au fond du cœur c'est juste ça voilà. merci papa Waouh. Euh, merci papa euh, maa

ci xewu magam bu jigéen lañ ko joxe autorisation mu way muy yaayu jo mbay bi may àndal sama cousin yaayu mature mbay ñu koy wax roqoye sekk sama maam dafa tàngoon ndax alkati la woon sama papa ñu musul ñeme si di xool ko muy góor bu am pit ñeme engagement njege ñeme njaboot coon lay wax pour ñëpp comprendre dafa daw ba sama papa dafa daw ba faatu est-ce que comprendre alors alors alors alors à un moment donné pour wax pour la histoire bi fii ni mu demee waaw Diouf déedéet

fii ñun bokk nañ ci ñi fi jëkk a dëkk suma waajur mi ngi ko jafe ci jamono yi màccu màccu c'est-à-dire ci sumay nopp sama papa way na vingt cinq ans soog di am terrain bu boppam xanaa kooku bëgg na lu leew xanaa kooku ñafe na de ci jamono yi màccu màccu lay doog am lu mel bi mu ànd nit mu ne ko coon lii dafa rëy xanaa bëggu xaalis doo ko tabax xaaj ko jar comme ça nga luwee yëpp yi mu ne ko déedéet damaa bëgg su ma tabaxalee sama njaboot ñu xam ne seen papa faaj na ko ba tabaxal leen kër diñ te ngéwél fu la neex jaar te kenn du taxaw li fii boo ko xoolee xam ni ki ko tabax góor dëgg la fi dëkk bàyyiwul sax pentu lépp kar la il a fait de ses propres moyens mu taataan ma ci góorgóorlu taataan ma ci dem self made man man je me rappelle suma yaay ji muy dégg suma ñi suma ndaw la quatre-vingt-dix-huit laa ubbi fàttali ko fu ma ne sama papa ma man xaw ma loolu xaw ma loolu góor gi dafa fayti addunaam ba nii mu génnee parce que lu tax sama papa moom mus musul bëgg dignitéem ak fi mu tolloon dafa dafa kawe dafa kawe donc héritage boobu ma jël ci moom muy dignité ak bëgg lu baax ak ni ma forcé ba ma doon góor tigi tigi tigi tigi c'est-à-dire góor du da ngay doon góor di dox nii bu ne léng di xeex wala ngay saaga wala ngay déedéet góor ci xol la góor ci brem la góor ci ñeme engagement la ak mën a téye famille askan buñ koy téye bu la ci yàlla defee bidéo da koy téye man su lu ma am ci àdduna ak fit mu mën a am suma ko gërëmewul kii kan laa koy gërëm la ndax dama lay indi disque d'or Sénégal incha allah dara indi disque d'or dama ne dama mais man li ma gën a naqari sama àdduna mooy suma disque d'or suma papa du ko fekkee te barki Cheikhul Khadim dama leen di indi disque d'or bu dee dama ko indi ba pare bàyyi lu ma gëm la bind leen su ma fàttuwul su ma fàttuwul bind leen Cheikhul Khadim xam na ni dama leen di jox disque d'or yéen Sénégal c'est le minimum bu may indi alors man soo ma gisee sax. <laughs> toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.